leen jëm Massalikul Jinaan jógee Touba mhm. waa jëriñ tey tali bi ni mu xate nii ñëpp jógee Touba jëm Dakar sëñ Touba rek biir Sénégal jëm Dakar yow loolu jaaxalu la sama xol bi dafa fees keroog ba mu taxawee ndar jafandu ci wokoo bi amul fu mu toog ñu boole ko ci wokoo sawe fu di def ay fas ci la duggoon bis bi gàccee na ko tey déggoo xaw sax nu mu tudd déggoo benn tur tubaab kenn nan fay nan déggoo du benn Touba ngay mënu ko fay ñu leneen mhm. bi da daan xat mhm. jóge Touba. Mhm. ñëw Massalikul Jinaan mhm. mais nit ñi doxe Pikine mhm. jëm Dakar sëñ Touba moo nekk ci xol yi nit ñi sëñ Touba nit ñi sëñ Touba jam ñaajo fi ñu jaar jam ñaajo ba euh, entre bi euh, euh, dëkk ba nu mu tuddati demal demal Cheikh fi baax dem ma dem ma sëñ Touba laay wax maanaam li ma lay li ma lay li ma lay li ma lay wax mooy sëñ Touba bisam bu ne gàccal na démbam